merci beaucoup président kàddu bu mujj gi. waa di di leen remercier et di wax aussi que Sénégal ku mel ni Sadio patrimoine national la. je pense que lim ñu apporté comme jour ak satisfaction yi. non man man dama en tant sénégalais en tant que sénégalais ñun en tant que mbégte yi ñu jox donc c'est un un patrimoine national dañ ko war a dañ ko war a ñaax dañ ko war a protéger c'est important mhm. parce que surtout pour la presse oui je parce que quand même euh, ci fierté sénégalais la mhm. par rapport ak li mu apporté ah foo dem ci monde bi soo waxee sénégalais ñu ne la Sadio soo des jours yoo xam ni fi mu yónni yóbbu Sénégal leneen yóbbu ko fa loolu sport rek moo ko mën donc di terminer aussi au de la ville de Dakar aussi ASC ville de Dakar di remercier le maire Barthélémy Diaz de l'appui mm. parce que tamit aussi ba ñu ko ñëwee proposer ko sa projet sportif da ko accompagner jàpp ñu ci ça a démarré avec Khalifa avec Soham Khalifa Soham mu ñëw aussi gën ko continuer ko donc je pense que loolu aussi dañ ko aussi remercier donc di di ñaan aussi que euh, championnat d'Afrique des clubs di ñu bëgg dem aussi ñu am même soutien bi pour ñu permettre quand même bu ñu demee sur le plan africain mun a défendre les couleurs du Sénégal